bi commerce ki xam le mom la Serigne Gueye Diop agent face à ki xam eh, ministre euh, le 2 juillet 2024 bi dafa dafa dafa dafa joxe dafa dafa signé une note de service pour xam mission jusqu'à nouvel ordre sans considération les, spécif les, spécificités de certains services comme la direction du commerce extérieur impliquée dans les négociations commerce ñom tamit euh, ñi ngi ñaxtu bu baax baax parce que ñom nee bimu ñëwé dañ ko dalal ak ak enthousiasme kii ko remercier ko féliciter ko et tout mais euh, jamono jii daal kontaanuñ ci li nga xamante peut-être non la xam nga booy gérer am am réew buñ la dénkee am réew wala boy gérer ben structure mhm mënoo def ba ñëpp kontaan loo def forcé dafay am ay ñu frustré il faut que nga xam loolu donc bu fekkee le ministre du commerce moom Serigne dafa jël ndogal ni que dafay suspendre temporairement yeneen ordre de mission yi en attendant ñu xoolaat ko mais il a raison nit ku ñu fal la ku ñu nommé ku bees la koo xamante dañ ko andi à la tête d'un ministère mais moom dafay soxla xam il faut il faut qu'il se retrouve il faut qu'il situe les responsabilités de son prédécesseur falla la ak lan la don def il faut ngeen bu baax mota activer les inspecteurs d'État pour nous dem dans ces ministères là dans les sociétés ñu la gestion de leurs prédécesseurs tant que wax tant que il peut pas se retrouver parce que on c'est vrai que état continuité là, d'accord L'État est état continuité là. ñu nommé là comme ministre voilà nommé la comme directeur général nga nous defoo audit interne defoo audit ci contrat yi defoo audit naka boîte bi nan lay fonctionner nga ñu nga ne comme état continuité la man ñi ma fi fek ñom lay continuer di ko na mais yow do def bilan kon yow do def bilan bu fekkee da na japp ni que état continuité la ba waral yow do def contrôle do do def audit interne mm-hmm. pour xam ndax agent yi fa nek xam ne yi fa nek seen nekkin bi fofu dafa légal wala contrat yi ñuy signé ay contrat yu légaux la wala seen ordre de mission mu ngi jaar yoon nekkul les mêmes agents ñoo nek di bénéficier mais lolu yow yow war nga ko xam yow soxla nga ko xam te lolu il faut nga xam ko donc lolu moy waral ta ngeen gis ministère yi ministres yi bees yi wala directeur yi bees yi ñu suspendre ay yeneen contrat ne neen damay suspendre temporairement en attendant ñu def audit ma càmbar xool ndax ñii ci ay anam yu légal la amee contrat yi wala ordre de mission yi mu ngi jaar yoon wala ordre de mission yi nekkul ay même agent ñoo koy bénéficier toujours mais nekkul ministre du commerce kese moo ko moo ko moo ko moo ko def Mm. Mais Wali Diouf Bodian, il l'a fait au niveau de, de, de, de du port autonome. Mm. De, de suspendre temporairement un contrat. Plus de 400 et quelques combien de contrats l'a dit suspendre mais mom, euh, le gars qui est au niveau de, de, de, de la lonage, mm -hmm. mom Toussaint Manga. ces Manga Mais il a suspendu des contrats, mm. des conventions publicitaires. Mm-hmm. ak ay yeneen contrat yoo xamante ne ay agent yoo xamante dafa y ni que anam yumi yu muy contrat yooyu baaxul en attendant ñu xoolaat loolu mooy am réew buñ la dénkee dara il faut que yow nga marqué sa empreinte bu subaa yow la ñuy jugé sa bilan lañuy ñuy jugé de dañu ne tous ces manga dafa fekk fa bilan euh, euh, Dora Dora comment dirais-je Dora Dora Balde. Dora Balde Dora Balde dañu ne tous ces manga dafa fekk Dora Balde mu continuer ci loolu donc Dora Balde la ñuy jugé déedéet. même bu fekkee touché manga dafa fekk ay contrat ya ma ay yàqu-yàqu bo xamante wala ay détournement yo xamante ne Doura Baldé mom la ko def mom la def mm-hmm. mais sénégalais bu ñuy tous ces manga la ñuy jugé bi laam la ñuy jugé à la fin de son contrat de son mandat mm-hmm. tous ces mangas la ñuy jugé donc si tous ces mangas n'a pas pris le soin de faire des audits wala audit interne pour xam mais mom moy gañu après Exactement. Mon il gagne après. Mm, oui. Que ça soit, euh, comment dirais-je, le gars qui est au niveau de la CDC, Falilou Keita, mm -hmm. que ça soit Bilal, euh, comment dirais-je, euh, Wali Diouf Bodian, que ça soit Kenan à Kenan, mm -hmm. il faut que nous donnions son responsabilité. Bon, mon mat sec. Gis nga ab kilifa da ngay jël sa responsabilité Bon, bañ dara que ça soit ñiy grève fële dinaa non dafa suspendre sama contrat ñiy grève fële ñiy grève fële bu fekkee yow yaa ngi ci yoonu dëgg. Mhm. bu ci ragal wéet. je crois que benn kilifa waxoon na ko fii. Mhm, Youssou Ndour moom boo nekkee ci yoonu dëggal bu ragal wéet. Mhm. bu ragal wéet de. tant que yaa ngi ci yoon dëgg. da dem ba mu mat sëkk. da jël say responsabilité def audit. bu fekkee gis nga fa ay lënt-lënt yu yàqu-yàqu nga jëm ko faxas yaa a tellement de saleté dans les dans la administration man chaque jour ma wax ko nee naa ko son excellence Bassirou Diomaye Faye bu mu yem ci ay nommé gis nga booy nommé nommé bi baax na ñi ngay nommé bu ñu baaxee te lu nekk ci biiru bon ñoom ñii ñi mënuñu gis seen baaxal bu fekkee lu nekk ci boîte bi salté moo fa nekk te yow balewoo salté bi ba pare fobeere ko yow nga yem ci

donc bu ñu la nommee fenn da ngay jël sa responsabilité bul xool sénégalais sénégalais yi yi lay yi lay xalamal tey tey ñoom ñoo lay critiquer il faut que nga xam sénégalais yi bàkku parce que non papa, Alé Niang la ñu nommé biir RTS ñu ñoo def pétition gis nga sénégalais yi ñuy wax ñii bu subaa boo defee benn benn dañuy faté lu ñu waxoon yëpp ñoom ñooy taxaw critiquer la saga la jàmmarloo ak yow donc mota mané ma la da ngay jël sa responsabilité buñ la dénkee ci ab benn boîte wala benn entreprise da ngay jël say responsabilité ba mu mat sëkk lu la yoon may pour nga def ko def ko. exactement lu la yoon may pour nga def ko def ko. Mhm, bu fekkee yoon daf la may. pour nga def ay audit interne. demal nga woo ces inspecteurs d'État nga ne leen kaay leen ma kaay leen ngeen xoolal ma fii mhm. parce que fii man ñemewumaa fii laal dara. il faut que ngeen ñëw ba pare balaa may commencer di soobu ci yëf yi. Mm. nit da ngay muus. nit da ngay muus buñ la defee audit ba pare. Mm. nga ne sénégalais mu ngi nii lii laa fi fekk. Mm. ñu gisandoo ko ñu ñëpp. mu ngi nii lii laa fi fekk ñoo ko gisandoo. wa ilaa bu subaa sénégalais yow la ñuy juger du ñu juger yow sa prédécesseur moo def jom njombe boobu dañuy ne yow la. dañu ñëw yow la gis nga Doura Balde moo lan moo ñuy indexé Doura Balde parce que Doura Balde mom mo wut euh, ki fa moy Lat Diop te Doura Balde bu mu ñëwoon au mu def audit pour mu xam Lat Diop lan la fa def bu fekkee détourné na wala détourné wu Doura Balde deful loolu parce que ñoom ñëpp benno bokk yaakaar la bokk voilà mhm. erreur bobu le Doura Balde def moo tax tey ne Doura Balde a signé un contrat Ladjop a signé un contrat. Dura Balde a signé un contrat. Ladjop a signé un contrat. Parce que Dura Balde n'avait pas, pas, pris le soin mhm. d'appeler les corps de contrôle là. Nous avons dit la gestion de Ladjop. Parce que nous avons dit que beaucoup de faits. état tous les deux membres de Benno Bokk Yakar, ñu nekk Benno Bokk Yakar, dañ koy saga wala dañ koy ne yow yow demo fu yow de voilà dañuy am lu ñuy wax ci mom mota c'est l'erreur que Dura Balde a fait. c'est clair. Donc, il n'a qu'à assumer. Heureusement que tous ces mangas n'ont pas, commis la même, la même erreur. il faut le temps d'audit audit interne. Moi, j'ai commencé à dire hmm. les conventions là. Moi, j'ai dit que ben par ben. te Toussaint Manga génnewul lu nekk ci bir euh, LONASE xam nga moom Benno Bokk Yaakaar la bokk. donc moom amna am na xam. Mhm. parce que ñoom ñoo fi nekkoon boo boo gisee mu ne Toussaint Toussaint Manga génnewul réellement li fa nekk donc ñun sénégalais ñu ngi xaar ces mangas pour mu génnee réellement. kafaar yi nekk bir biir LONASE. Mhm, exactement comme ñoom Benno Bokk Yaakaar ñoo ko wax. Mhm. ñun ñu ces mangas pour nous mu réellement à travers un rapport. la lu lu lu lu lu nekk biir biir biir Lonase. te sénégalais ñoo ko bëgg a xam. ok te incha allah dinañ ko xam. ok c'est clair euh, ñu jeexale ko ak euh, kàddu yi nga xam si moom la imam euh, Dramé yëkkati di wane maanaam naqara bi nga xam si am.